Lamine laaj ma leen lu desaat. lu desaat sëñ bi. politicien boo xam ne dana weeru. Euh, balaa ngay egg foofu dama bëgg a am lu ma leeral tuuti ci Idriss Seck nee naa du wax lu bëri ci nit ñi waaye depuis quelque temps dafa ci média yi di wax ma jàpp ne am na loo kili ne kilifa moom ko kilifa bis mu ne nga ne dem dem naa seeti diw wax naa ak moom lii lii la ñu li la ñu jullee la tari dem naa seeti diw dina dina dina am fu muy toll koo seeti mu la buntam man. ma leeral lenn ci Sénégal parce que dafa bëri ñu ma ci interpellé Idrissa Seck dafa annoncé woon ne day wax su ma juumul le 27 le 27 mars ma toog toog toog sama benn xarit ñoo màggandoo ñoo defandoo lépp woo ma balaa moom am na keneen ku ma njëkk a woo ma ah Idrissa Seck de moo ñu woo ne nee na dafa dafa bëgg a gisee ak yow jaar na fu nekk nag mais mënu fexe ba gisee ak yow ma leen señ bi ma leen bàyyi leen noonu.

le 27 ci fajar sama garde du corps baa ngi mën nako sédé ma ngi tek sama xëdd sama beñe dugub xam nga dama bëgg beñe dugub tek sama beñe dugub sama café bay commencé xëdd moom mu ñëw fëgg ci buntu bi sama soxna ñëw né ma ah ki dé nee na Idrissa Seck ngi ci suuf ma né ko la Idriss ak mëna ma né ko fi def heure bi ni heure bi ñëpp a ngi seen kër di xëdd ak seen njaboot lu muy def fi heure bi ma né boy bi mi ngi ni mi ngi ni mu ngi ko laaj ma né ko demal nga né ko duma recevoir dama convalescent demal mu dem tourné di dem mais bu ma duggaatee sama sama biir li ma tooñ mooy sama xolu julit ak sama xolu yërmande ma toog ma xalaat ma ne mag mu toll nii bàyyi njabootam ci heure bi bàyyi yitteem yëpp ñëw fii ne damay seet Ousmane Sonko xam naa li ko yëkkati war na koo ñor tool su ma ko bàyyi mu dem ni dina ñaaw ma dogaale xale bi ngi woon ci escalier ma woo mu ñëw ma ne ko anam mu ne ma àbb na si jaada ba mi ngi laal ci buntu kër gi di julli ma ko non dugal leen ci biir bu leen ko bàyyi bi mais nee ko maa ngi julli su ma jullee ba pare dinaa wàcc ñëw seetlu fo xam lu moy doyee ma julé ba pare ba def may def mo ci fekk ko foofu ma ne quoi ah, sëñ bi mbaa jam way jam la et cetera remi déglu ko mu expliquer expliquer réew fu mu toll ñu ko ni man ma jël sama responsabilité demu ma ngi ndogoo ci président tay ma xey ñew fi parce que li yow waro wax li ci waru mom def waru def li troisième mandat ceci ablay wat cela nangam nangam ma déglu ko paré pare ma ne quoi nak ah, accord waaye jam mom, ñun ñepp xam nañ ci lan la dépendre ñun ñëpp xam nañ fi kii yee fitna ñun ñëpp xam nañ kiy dóore kiy tëjee ak kiy def li muy def boo delloo ci moom waxtaan ak moom bu bàyyi yooyu muy def jàmm dina am ci réew mi li ca des nag waaye bu la invité 4 avril nanga ñëw parce que néeg néeg gi man ne ko déet man dama bokk ci coalition buñ ci tollee nañu laaj dañuy wax suñu biir waaye man damaa xaw a tawat nekk convalescence waaye su ma doon def 4 avril sax Ziguinchor bi nga xam ne maay maire ba daaw ma demoon fa 4 fa laay dellu bokk ci 4 avril noonu mu jóg ma gunge ko mu ngi dem sa banko toj ne ma ma jot nga xëdd mu ma ah fii laa ko yaakaare woon de ma ne ko ah kon waroon nga ma gëge ko mu dem mais sama xolu yërmande ak sama xolu jullit moo ma tooñ waaw parce que su dul woon li mu ñëw sama kër heure boobu du ma mës a dajeeg moom naan damay toog waxtaan. daa jàpp ni erreur nga li ko recevoir. non du erreur parce que je n'ai rien à regretter mais ni génn foofu wër fu ne nga dem fa am Sonko andil Sonko jaruko ko c'est-à-dire ku sa carrière politique dem ba yàq ko. ba tey sénégalais yi xool na bët bu ñu xool nga jékki-jékki bëgg a dekki jàpp ni nekk ci deru sonk moo lay delloo si waat da ngay nax sa bopp ñoom ñëpp mag mu mag foofu dañuy politique man xaar maa ngi doon dawal puna kon am na yoo xam ne jaru ko ñëw di xaste di wax lu ñaaw si nit ni mu nettalee mbir yi nag euh, demewul euh, noonu moom euh, njiitu Pastef démb nag ci waxtaanu mu seqoon nag waa Walfajri moom nag Idrissa sekk nee na bu dul woon li muy jànkonteel jamono ji fi mu ne nii nag ci ñaari wuy yi mu war a wuy ji benn bi ñu di ko ci jiiñ tuuma joo xamante ne nii da koo teg nit waxal ko lu mu deful beneen bi ñu di ko ci jiiñ viol bu boobaa nag moom dana ko mën a jëflanteeg moom waaye fi mu ne nii li muy ñaan mooy yàlla atte leen ci li mu ko waxal ñu déglu ko moom Idrissa Seck. J'ai écouté avec beaucoup de tristesse mon jeune frère Ousmane ak xool bu jeex laa dégloo Ousmane Sonko di wax lu uute lool ak euh, li am bi ñu waxtaanee le 27 na fàttaliku rek ni daf ma ni woon tàmbaleegul woor euh, ndax dafa xaw a tawat te man sax euh, sama xel yoon na ci lool ndax ni ma ko gisee mi ngi woon ci forme waaye li muy dund rek jamono ji tax na ba mu war a xalaat li ñu wax ci alxuraan ne dëgg mooy mujj dina ko jàppale bu baax a baax mu arrêté manipulation bi mbiram mi ngi ci yoon ngir diffamation ak euh, wàllu viol euh, muy ay jafe-jafe yoo xam ni da koy dund te bu du woon loolu dinaa ko gën a wax boppam waaye ma koy ñaanal mu génn ci. ma solidarité face aux épreuves qu'il vit. Idrissa Seck bi muy woo Ousmane Sonko dem këram mi ngi toog ak Macky Sall Idrissa Seck l'après-midi la fa naroon def Ousmane Sonko moo ko ni mu ñëw cinq heures du matin. noonu noonu mu jóg ma mu ngi dem sax maa ngi koy tooñ ne ko mbaa jot ngaa xëdd mu ne ma ah fii laa ko yaakaare woon de ma ko ah, kon waroon nga yëglu ma gunge ko mu dem